mi ngi noonu voilà alors Ousse ñoo koy baax a baax di ko masawu bu baax a baax moo xam naa fi mu toll nii moom Euh, tala ñu waaye duka daal ñu ngi koy jaajëfe bu baax a baax Ousmane Noreyni la Baye Fall la Baye Fall noobu mm-hmm. alors tey fi ñuy commencé mooy lépp li nga xam ne ni xam ngeen ni temps yëpp sax euh, mun nañ wax ni mu gën a nekk en vogue si wàllu société si wàllu lii di xeesal si wàllu lii di euh, démb sax ñoo ko waxtaanee ñi nga xam ne nii ñoo ngi jot ñoo ngi utiliser ay lèvres di ko diw maanaam seen tun yi waaye mm-hmm. xeesal bi temps yi yëpp ñoo koy waxtaanee loolu moo tax ay sénégalais jóg maanaam def benn pétition pour maanaam interdire lépp li nga xam ne nii affaire de xeesal la si fii si Sénégal. Mm-hmm. bu ne xeesal nat Sénégal. il faut ñu tudd kii di xam ne nii moom mooy euh, maam Ndiaye Savon. Mm-hmm. même fekkee sax du moom kase waaye tamit mun nañ wax ni moo nekk si kaw euh, parce que tamit fausse kenn mun ko tere. waaye en tout mm-hmm. su ma ti doon daal mooy. am na benn image boo xam ne démb ba léegi tamit. moo mhm. euh, ngi si réseaux sociaux réseaux sociaux yëpp réseau social boo ibbi da ko fa gis mu nekk lu daw yaram benn xale bi nga xam ne nii 19 ans kese la am waaye xeesal moo tax loxoom bi yëpp yàqu ba kenn xamul euh, lu muy nduróol si sa mhm. boobu mu nekk image boobu ngeen gis nga xam ne si biir image bi sax euh, moo ngi waxtaan ak docteur bi nga xam ne ni moo ngi naan ko. kañ dala dal mun ko depuis décembre laa ko commencé. mun ko mhm. nga am mu koy wax naan ko 19 ans kese laa am. mais xeesal bi moo ko def nii Feuz alors hmm. Feuz yow en tant que jigéen nan nga gisee li ni mel. Euh, dem ba léegi ñu koy gis ci video yi foog naa waaye nag man damay wax ne euh, namu ca yabu ca ku la ca sabañ nga jël. ko sa bamax nga jël gis nga Momo euh, y a des yi nga xam ne bul dof ba nit di la ci dugal. Hmm. ba ngay lor sa bopp. gis nga jël sa loxo bi nga dugal ko ci taal bi tey su ma la ko waxoon doo ko def. tey jii Mame Ndiaye savon lu mu riir riir nit yi di daw di dem si moom muy jaay ay savon di defal ay xeesal comme ni mu koy mhm. defee mélanger mhm. man du tax ma dem daw njëkkante naan dama jël loolu te xaw ma ba xam lii war naa ko jël waroo ma ko jël mhm. taar bu mu la ko jaral bëgg gis leen ma ak wonewo bu bu mu la ko jaral ba sa yaram di ci yàqu parce que ku ne xam ne ne xeesal am na li ci nekk moo bari Euh, feebar boobu ñu naan cancer du peau su ma juumut xeesal da koy joxe. Mhm. nga gis maladie boobu nga xam ne li muy faat ci ci ci année bi kenn mënu ko wax nu mu toll. Mhm. nga xam ne lii da koy joxe te heure boo jógee dem foofu. Mhm. man maam Ndiaye d'une duma ko wax dara de parce que moom day liggéey. Ah, d'accord mais liggéey mais. ak non non moom moom day liggéey di defar ay affaire am di ko jaay. léegi yow mii dem di ko jënd bu ñuy am lu ñuy wax yow la ñu war a waxal. parce que tamit nag dafoo bay dem xool loo xam ne mi ngi bind rek comme damay tooñ sax sama mbokk yi nga xam ne gars yi nga xam ne dañuy jël cigarette mhm. wóor loolu ay cigarette danaa la carrément man lii waaw baaxul mhm. xam ko génn sa responsabilité am waaw mais Mame Ndiaye Savon moom li muy jaay ngay njëkk a tudd yow loolu mais ñoom ñëpp en général laa wax mhm. képp kuy jaay yow maanaam jàngoo ko xamuñu ban produit nga koy defee. Mhm. loo wax ku la njëkk wax mooy maanaam damay jàmm. Mhm. fa lañ koy jàmbee yan yan si yan euh, moment lañ koy jàmm si yan période lañ koy jàmm. si loolu laa la wax ne la loolu laa la wax ne la Mame Ndiaye day wut xaalis moom alal lay wut. moom intérêt personnel am lay xool moom xoolut ki nga xam ne bu ko diwoo dina yàq yaramam. Mhm. li mu mën rek mooy ne la sama diw bi baax na du yàq sa yaram boo ko jëndee lii lay def pour jaay mais yow yaa war xool li nga def sa yaram lan la. yaa war a xool li ngay dugal même lekk ba ci lekk tey bu ñu la ko tegalee ngay li ngay lu xas ba dugg si biir jeex na mhm. noonu nga war a xool tamit li ngay def ci sa yaram di ko diwoo ba xam lii boo ko diwee lan la la mën a jural suba mhm. gis nañ fi mag yu bëri tey bu ñu la rombee dool da leen di ragal parce que dañuy gaynde dañuy mel ne ci ñi ma ko war a wax dañuy mel ne ay baabul mhm. yenn diw yi yenn produit yu foor yi moo leen ko jox te fii Sénégal seddut booy xool tàngaay tàng moo fi ëpp te bari na ñoo xam ne bu ñuy diwoo euh, tàngaay bi baaxut seen yaram ku ci mel ne man fi mu ne nii bu commencé tàng naaj dong bi damay day lay laq comprendre nga kon man xam naa sama bopp yenn diw yi du ma ko utiliser du ma du ma ko maanaam daal man ni ma ko mën a waxee ci gàttal feuse hmm. <laughs> bëy la balaa moo dee ñëpp dégg ah en tout cas du ma fekk diw yi di ko def sama yaram du ko conseil tamit ñi nga xam ne d'habitude ñoom ñoo koy def hmm. nañu xool li ñuy def seen yaram yi daal moo gën Mame Ndiaye day jaay rek non Mame Ndiaye d'accord Mame Ndiaye day jaay te bu mu dee jaay ba léegi nag hmm. am na ay euh, mën a wax des dizaines de femmes yi nga xam ne ni topp nañ ko si li muy jaay ça veut dire que nekkatul moom kese mais génération bi yëpp tamit am na ay Mame Ndiaye fu mu toll dafa dafa nekk maanaam influenceur la idole la mhm. ref am na ñoo xam ne sax Mame Ndiaye Savon référence si ñoom mhm. donc tey ji dama jàpp ni même moom bu fekkee ni day génne wala muy def dara war na ko teg fu leer fu légal tamit parce que tamit chaque jour Sénégal yëpp dañuy posé boobu est-ce que ñoom ñuy jaay sama yëpp jàng nañ ko wala est-ce que jàngee wala da nga naan est-ce ñoom sax moom la ñuy utiliser voilà c'est-à-dire sëb la la ko mën nga ci biir ñoom xëy na ñoom ñi ngi koy defar di ko jox nit ñi mais est-ce que ñoom moom la ñuy utiliser. Mm-hmm. parce que ñoom dañ lay won photo wu si nag nga gis seen yaram yi nice macha allah. Mm-hmm. soo demee sax diwoowuñ li ñuy jaay. soo demee diw fu mu cher comme ñoom dañuy voyager di dem si dëkk yi di jënd ay diw di di di di di mélanger comme ni ñu koy defee. Mm-hmm. Euh, mën na am ñoom diw ya fa mu gën a baaxee loolu la jël diwoo ko mais bul xam li ñuy defar di ko jaay nit yi lan la. loolu mooy problème bi. Euh, lu jar a moytu la daal Nabil TV. 221 mu ngi laajte Ousmane Ousmane euh, mu ngi fi mu ngi ci jàmm. Mhm. tey maa fi nekk <laughs> tey Feuz mooy Ousmane. tey Feuz mooy Ousmane. Ousmane mooy Feuz waaye tey Feuz mooy bu baax a dafa neex xaw mën a neex. mais nag euh, ba tey buñ ci ñëwee rek moomoo di wax ne euh, lu ñu war a jug la. Mhm. ndax tamit am na ñoo xam ne xamuñu dañuy gis ñiy jaay rek du ma ne Maam Jaay kese mais Maam Jaay influencé na ñeneen ñoo xam ne ubbi nañ entreprise te comme moom la ñuy def parce que gis nañ Maam Jaay xëy na mi ngi dox le mhm. ne pourquoi pas du ñu def comme Maam Jaay xam nga li ma la wax. xam naa bu baax waaw kon jar na ñu jug ci. parce que tamit euh, ku ci mel ne Yaaya Jammeh xam nga ne dëkkam dafa tere woon sax xeesal. kenn ku euh, loolu kon lu ñu war a tere la lu ñu war a jug la ci réew mi parce que am na ñoo xam ne xamuñu daal dañuy dem rek tëll dégg tëll rek na damm na ñoom. mais lu gën benn problème bu euh, ci am vidéo bi yaa ngi dégg docteur bi sax moo wax depuis décembre ba léegi xale yu jigéen ñi nga xam ne ñëpp ay xeesalkat lañ ku si feebar cancer bi yóbbu na la yóbbu na sa bakkan. mu ngi noonu mooy li ma la wax <laughs> mooy li ma la wax des fois bëgg jël maam Ndiaye teg ko fee mais ñi dem di ko jënd est-ce que ñooñu psychologiquement wér nañ parce que gis nga xeesal ñi mu yàq nga gis xeesal ñi mu lor. Mm-hmm. savon yi ñuy ménage nga gis ñi muy lor nga dem nga ne da koy dem jëndi pour lan da bëgg rafet da bëgg mel comme nit ñi léegi après lan moo la siy dal doo xalaat loolu est-ce que psychologiquement ñooñu tamit waruñu xool seen bopp yi. dama dama ànd ak benn bis euh, sama benn rak euh, mu jënd ay parfum yooyu noonu si biir bitig bi ñu fekk benn xale bi jigéen bi nga xam ne teint noir bu macha allah. Mm-hmm. teint noir bu rafet. Mm-hmm. mu ni mu muy muy waxanteeg jaay ko ku kuy jaay diw yeek affaire yooyu ne ko jaay ma diw xeesal. Mm-hmm. jaaykat bi ne ko kan moo pour kan la mu ko pour man. jaaykat bi ne ko yow du ma la jaay. jaaykat si boppam jaaykat bi jaay xeesal si moo ne ko si boppam man yow du ma la jaay ah, mu ko dama mu ko sa teint noir bi nga yore nga bëgg yàq alors bu ko yàq mais xale bi peut-être complexe xaw ma mhm. la moo ko jot mënu ko dafa am mhm. sa benn xarit boo xam ne day xeesal mais xeesal bi dafa rafet te mhm. xeesal ba moom a neex te xamul moom li mu te xam nga moomoo li ci gën a garaaw mooy euh, gis nañ fi ba tàyyi xam naa bu amoon médecin bu toogoon fii dinañ ko mën a wax médecin yu ñuy indil malade ba tàyyi ñu war leen a faj du ñu am fu ñu jaaralee pour mën a xool wenn bi fan la nekk ndax xeesal bu métti des fois ñu bëgg leen a defal opération day dañ indi ay difficulté ndax xeesal buy parce que xeesal lan la sa po bi lay jël gratter ko yàq ko li ci baax lépp mu dindi ko yow doo ci comprendre dara lay yow da ngay sa yaram sax dafay fragile pour yenn yi dal la mm-hmm. parce que li baaxoon yëpp xeesal bi produit yi ngay diwoo jël na ko yóbbu na ko mm-hmm. comprendre li ma la waxoon sànq dama ci dellusiwaat du ma gis suñu yaay yi suñu maman yi des fois ñi nga xam ne koo ci tasal bi di daay da nga koy seexlu ma xam ne xeesal moo ko def nii may dem di jël nga koy def sa lekk dama koy seexlu sincèrement en plus dañuy am xet ñu ci bëri dañuy am xet tàngaay bi waaw parce que tàngaay bi tam boo bëggee di diw diw xeesal des fois dafay foor nga diwoo ko pare non mooy loolu daal Euh, Sénégal ce peut être Sénégal xamuñu ko peut être euh, pétition bi sax euh, dina taxaat Sénégal yi gën si bàyyi xel waaye ñoo ngi xam ne waa Kawtef ñoo ñu koy wax depuis 9 mars 1979 lañ tere maanaam xeesal Sénégal. 79 79 ba léegi ñoo ngi ko tere mooy képp nga xam ne ni mooy élèves yi. mooy mm. enseignantes yi mooy ñi nga xam ne ni maanaam mooy média bi tamit ñu bàyyi di def ay publicité. Mm-hmm. mais ba léegi. média bi deful benn publicité. ñu ngi continuer di ko def mais xale jigéen ñu ngi continuer ba léegi xese bi day gën a yokk. Mhm. loolu mooy ñàkk a xalaat xam bi rek. xam nga sànq nee naa est-ce que ñooñu wér nañ non ñooñu koy <laughs> xam nga moom woon nag dafa lay benn affaire gis nga nit. dafa bari ngay gis nit kuy dox nii mel na ma war a mel fekk psychologiquement boo ko xoolee wéru comprendre mhm. daf fi bëri nag. ak ñàkk conseil ak bëgg gis leen ma ak ma riirandoo. loolu moo ni poussé si mooy indi loolu parce que gis na sànq yaa wax fii léegi ne kooku dafa gis xaritam bi xeesal rek mu ne xeesal bi dafa rafet damay xeesal. Mhm. pour lan moom warul yam ci temps bi nga xam ne suñu borom jox na ko ñëpp di ko wër. man su sañoon tey dama yàlla baal damay ñuul kuk man ma sañoon noonu laay mel yàlla nag na dafay bind ñoo xam ne teint clair la ñuy mel mënuñu ñuul mais su ma sañoon teint noir yooyu. Mhm. ku ci mel ne suñu maman Soda Mama Fall. wallaay ba léegi nii mag ñi mu doon àndaloon mairie Soda Mama rek nga ci mën a toog nii xool ko normal mhm. parce que musul xeesal mais ñu ci doon diwu lépp ñëpp boo ci gisee nit danga ko danga koy xoolaat seen yaram yi non seulement dafay ras mhm. dañuy dañuy doo xam lan dañuy drôle dañuy ñaaw dañuy màgget dañuy faible mhm. euh, or que soo de maama mi nga xam ne musul woon utiliser diw yooyu noonu ba léegi nii tubaarkalla macha allah maa ngi koy nuyu de passage sama yaay jooju wala yaay booy du <laughs> guddal fan euh, dégg naa timit am na suñu naan xaw ma am na ñuy xeesal xam ne ay xeesal piqûre la mhm. ñii da ngay ñii da ngay jël xeesal bi xaw ma nu koy defee da ngay pompe rek sa yaram bi di am na ñoo xam ne tamit dégg naa dañuy dem hôpital ñu defal leen ay butéel yoo xam ne leen koy sampal rek affaire yi kii loolu tamit loolu tamit lan la la mën a lan la mën a indi ci sa ci sa wér gu yaram ci yàlla loolu foog ñu foog ñu jóg ci tamit parce que lépp pour gis leen ma rek pour góoñu xool la wala pour la mooy ñàkk wér ndax man même bu may bëgg yow moomoo nga xool ma day fekk man mu nekk luy nekk sama wér yaram mais sama bopp la gënal tamit du bañ naa la man du ma bëgg yow mu moom lu la neex bay yàq sama yaram bii nii te yow su ma fi feebaree fii nga may romb dem seeti keneen te yéen ñi koy def di jël xeesal di ko def si seen yaram yi pour lan xale yu góor yi ñu xool ma bu ngeen fi feebaree dañ leen fi romb dem seeti ñeneen bu ngeen fi seen yaram bu ngeen fi amee yenn rew yi dañ leen fi romb naan da ngeen bu ngeen fa ñuulee ñu romb leen fi ngeen am ay gaynde ñu romb leen fi dem seeti ñeneen kon xool leen bu baax li ngeen def seen yaram yi dofoo leen ñi ne jàpp leen ñi koy def nag laa wax <laughs> <laughs> kii nee na bu fi moomo bu fi Ousmane nekkoon ba léegi saaga na xeesalkat yi man du ma leen saaga waaye danaa leen wax lu bon bu nekkoon ba léegi saaga na leen <laughs> dëgg la alors buñ paree foofu nañu dem si leneen li nga xam ne ni moom tamit euh, temps yi yëpp moom tamit dem ba léegi moo ngi def